ngeen di suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné si Tawfekh Production ngeen mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ko ngir a xam li nga xam ne mooy xew si euh, euh, bëggoon wax ci wàllu euh, kii président suñu réew mi Macky Sall maa ngi lay nuyu bu baax yow ak ñi nga àndal yor liggéeyu réew mi di la jaajëfal am nag ay ay ay xalaat yoo xam ne ay njàngat yoo xam ne amoon naa ko ci réew mi surtout foofu ci ndakaaru ay jàng daal yu bari yoo xam ne def naa ko ma bu fekkontoon dangay koo xam ne man na ma doxal samay tànk ba ba ci yow kon noonu laay def ak samay tànk ba noonu laay noonu laay def waaye ne lii wasiila la ci man maa yoon la wax mën naa cee jaare ngir li ma la bëgg jot li nga man nga man nga mën cee jot bu doon na koo xam ne moom man ma dox sama tànk baag kon dama koy noonu laa daal def rek dama daal dox sama tànk ba ñëw rek wax la ah eh, diw sàngam nangam nangam leer la bu ko leer la ma bëgg lépp la ma bëgg ma leeral la ko ah, kon maa ngi lay maa ngi sàkku ci nga fexe eh, ñu gisee ba xalaat yooyu nga xam ne am naa ko tamit loo xam ne intérêt réew mi la sa intérêt la yow président Macky Sall ndax kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi ku ne ci yéen la wax ab sàmm nga te sàmm bu ne dañ ko laaj la nga doon sàmm kon réew mi kon maanaam lépp loo xam ne luñ fi laaj la moom la ko suñu waaye du ñun ñi la koy laaj kon loolu euh, njariñ la loo xam ne sa njariñ la njariñul sa réew la mu ay jàngal yoo xam ne dafa amul njariñ nag mën a ci réew mi euh, ndax am réew la koy doxal la koy jëme kanam mooy ku ne ci euh, waa réew mi di def loo xam ne dina yëkkati réew mi lépp njariñ lu mu lu mu xam loo xam ne dana jëmee réew mi kanam mu di ca dox di ko wax loolu nag waral bi bi nga xam ne am naa xalaat yi xalaat ko ba mu muy xalaat yu baax ma téye ko amul njariñ moo tax mën naa ko te it mun ma euh, jug jug sama tànk ñëw ba ci moo lii wasiila la man naa na naa ko def ngir boo ko déggee nga fexee ñu gisee boo dee ma leer lépp li nga xam ne xalaat naa ko te muy xalaat yoo xam ne dana jëme réew mi kanam tey dana amal njariñ yow si jëm njariñu ñëpp daal la ci gàtt waaw njariñu njariñu njariñu la hmm. waaw ku ma bëgg a eh, eh, seet nag man maa ngi fii ci Touba yàlla dogal na fii ci Touba laa nekk ndax ci daara ji xam naa ne eh, génn danaa ko faral di waaye nag taxu koo demee noonu tubaa gi daal laa ëpp lu may nekk maanaam <coughs> dafa am nag ay waxtu yoo xam ne Euh, képp koo xam ne yàlla dogal na nga dégg vidéo bi seetaan ko ba euh, jàpp jëflante ak ñun ci am waxtu yoo xam ne dama dama ci soxla sama bopp ne sama kurus am na ci waxtu yoo xam ne moom danaa ci am yaatu ba ku euh, ma bëgg a jot dana mën a nekk waxtu yooyu nag mooy itamale suba gi ba bu ñu xasee xëy daal ba 14 heures heure boobu moom diggante boobu yëpp dama ci jàpp moom ñaare ku euh, ci mën a jël téléphone dama ci mën a kii ndax dama ci jàpp su weesoo loolu nag moom ba jant soo diggante boobu moom ba jant soo moom saa yoo ma nit woowee ci maa doon danaa la mën euh, ñu wax bu bu loolu jàllee timis gi bu xasee bu jàllee ba 23 heures moom diggante boobu moom dama ci dama ci dama ciy jàpp kon diggante diggante boobu su jàllee 23h ba 5 guddi gi yëpp moom heure moom saa yoo ci nit ku ma ci soxla moo xam téléphone la moo xam da nga ñëw saa yoo bu dee téléphone boo ñëw boo ma woowee da bu dee da nga ñëw te heure boobu moom dama ci yaatu 5 23h euh, jëm 5h moom moom moom ci yaatu loolu moom. kon nag euh, képp koo xam ne rek yàlla dogal na nga diglu ki vidéo bi euh, man maa leen di rek ne képp ku yàlla. namm ci yow jubug jubug sa mbir moom incha allah rabbi bu dee loolu doon jaaxale ci aw yaram ci xeet yu demee noonu da tàggoo bu dee itam loo bëgg la eh, di ko sàkku incha bi buñ jëfantee moom da sant yàlla kon noonu ma waxee nag eh, ñu bàyyi xel sëriñ bi sëriñ bi moo bind wax loolu na su mbindeef yëpp boole woon boole daje woon bëgg jariñ kenn ci mbindeef yàlla yi te neexut yàlla loolu du am loolu tax ma di ko baamu bu teg ci ne bu ñëpp bu mbindeef yi dajale woon bëgg yëngal aw sànq lañ képp te neexut yàlla ba tey loolu du ànt kon kon loolu day day day tegtale na sabab yi nag mënu su cee bañ tënku ndax sëriñ bi wax na ne ah, ah, ah, nit nit bu fekkee daa yor ngànnaay ba noppi toog bañ a rëbbi loolu ñàkk tegee ne ci diggante boroomam yow ngànnaay bañ a rëbbi mooy am nga ay sabab yoo xam ne boo jaaroon yàlla dimbali la nga toog nag fas see loxo loolu bokkul ne sëñ wax na ne bokkul teggin ah kon euh, ñu jàpp ko noonu léegi am na ñaari garab yoo xam ne bëggoon naa ko leer yoo xam ne moom daanaka ma naa ne ci côté faj la gën a jëm côté faj nag man ñaan laa gëstu waaye côté faj moom taxuma ci xóotul loolu ñaari garab yii nag moom Euh, baax na lool surtout ci wàllu euh, wàllu euh, sëy ndax sëy ñaar dafa am ñaar yoo xam ne ñooy composé ñaar ñaari mbir yoo xam ne ñooy tax ab sëy tegu ci aw yoon ñaari mbir ñaari mbir yooyu nag benn bu ci ne dama ci am garab boo xam ne mel ni mbir mi lay lijjanti nga xam ne ñaari mbir yi garab bu ci ne am na ci mbir mu lijjanti moo xam ne su jegee nit ki na ko bëgg mën na ko am ndax am na ci ñooñ dañ dul am kàttan ngir mën a sëy am na ci ñooñ dañ sëy waaye bànneexub sëy bi kàttan euh, na war a mel kàttan nga ci war a nekk néew ca ñaari mbir yooyu nag ñaari ñaari mbir yi nga xam ne ñoo yor loolu nag moom lu ci ne am naa ci euh, garab gu baax goo xam ne bu soobee yàlla moom dana ko dana ko defar lool sax incha allah rabbi hmm. ok